Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàttee activer walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si nekk et maintenant bon visionnage asalaamaaleykum mbokki internet yu Sénégal 4 TV amaat nañu mbégte eh, dikkaat ak yéen rek ci émission bi ngeen tànnal seen bopp di ëttu xam-xam mbokki ëttu xam-xam ñu doxantu ba fii ci diwaanu HLM Grand Yoff eh, seet si nag ku yàlla baaxal ci wàllu xam-xam waaye tamit ku yàlla baaxal ci wàllu ñan eh, ñu di ko wax Serigne Khadim Fall Alquran léeg-léeg itam Serigne Khadim Fall alxuraan dafay nekk fële ca diwaanu Touba waaye léeg-léeg saa bu ñëwee fii ci diwaanu Dakar mi ngi nekk fii ci HLM Grand Yoff sang bi ñu ngi lay nuyu di la ziare tey itam di la jox sa wàccuwaay. waaw di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Izaa jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-naas yadxuluuna fii diinillahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaban. الحمد لله رب العالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ملك يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إياك نعبد وإياك نستعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اهدنا الصراط المستقيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين صراط الذين أنعمت عليهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين خير المخدوم عليهم ولا الدارين أن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وعليكم السلام ورحمة الله mbokk نجي دلو ngi delloo آه، دي bu wér wér di siyaare mboolem jullit yëpp di balu di ñaan yàlla suñ borom boole ñu jàmm ak tawféex mboolem jullit mboolem taalibe di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke liggéey bi mu fas yéene liggéeyal maam borom Touba yàlla na ko liggéey ak jàmm te ñu ànd ko moom di ñaanal doomu aadama yi nekk ci ay jafe-jafe yàlla na leen ko suñu borom teggil di nekk ci biir pression yi yàlla na leen yàlla suñu borom génne leeral seeni xol ba du defati lu leen fa duwal ñi nga xam ne suñu borom dogal na ñu nekk ci biir euh, kër yi ak ci biir hôpitaux yi suñu borom dogal ñu feebar yàlla na leen suñu borom yëkkati delloo leen seenum xel barke borom Touba euh, ci sama kàddu képp ku ko dégg bépp aajo boo am yàlla na ko suñu borom faj barke Sewul Xaddim waaw bisimilah. ci biir bu rafet bi te itam matal na macha allah. Hmm. Eh, sang bi fu ñu bëggoon rek tàmbalee suñu waxtaan ak yow moo di jëm ci wàllu nawet bi eh, dañu daan gis mag ñi bu njëkk eh, ki nga xamante ni la suñu borom ko xam-xam. lu jiitu nawet daan ñëw euh, daan nañu faral di def ay déclaration di def ay sortie hmm. di wax ñu njaboot gu nekk wala boo kilifa gu nekk génneel sarax nangam génneel sarax nangam mu mel ni nawet bi nga xamante ni ci lañu nekk euh, dégâts yi bari na euh, yàqu-yàqu yi bari na waaye tamit loraange yi bari na ak mbaaru sarax ya mag ñu doon digle dañoo fara wuyu ju borom bi yóbbaale sarax yooyee ah, waaw déedéet ku baax ki ndax xam-xam moom wax dëgg yàlla suñu borom moo ko doon joxe te suñu borom jugu fi euh, moom moo ko joxoon mag ñooñu suñu waajur yooyu ak suñu maam yooyu euh, ñoom nag maanaam doomu diw moom euh, toujours diw rek lay daal di jur doomu gerte gerte rek lay daal di jur suñu borom dogal na ñu doon nit koo xam ni suñu borom dafa dogal ñu soqeekoo ci ay nit yu baax doo doonoon ay wàllu yu kajoor Euh, suñu borom dogal tamit euh, ñu tudd Serigne Khadim li gën a yéeme ñu tuddee ñu si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, ñu sant Fall sant Cheikh Ibra kon dañoo bokk ci ñaari mbir yoo xam ni ñaari boo xooloon àdduna li ci gën a kawe maanaam ñoo ko fi taxawal. Eh, ginnaaw Muhammad sallallahu alayhi wa eh, ci kaw loolu maanaam bu dee wàllu nawet bi eh, la ma waxoon ci maanaam bi corona yi bëgg a ñëw defoon naa fi benn émission ma ne woon nañ génne saraxu galaas kër gu nekk juróom-ñaari mbuusi galaas avant corona bi ñëw waaye dañoo toll ci doomu aadama yoo xam ne daanaka tëluñu dara lu dul àdduna tëluñu dara lu dul am-am. Euh, te dem nañ ba sonn ci ñenn ñi ba tax ñaare képp kuy wax sax euh, dootum la gëmati heure boo waxee rek ñu ne ñëpp a yem te olof Njaay dafay wax ni bu ñëpp yemoon am ñoo xam ne dañuy gedd seen cër ndax yàlla mi bind sax yemalewul comme que sa juróomi baaraam euh, mën nga cee tënk sa bopp tënk ci say morom ndax ni nga njoolee kii gàtt noonu la suñu borom tënkee sa loxo bii nga mën cee xam sa bopp. Euh, kon nit ñi mënuñoo yem ci kaw loolu maanaam lama ma waxoon ci Bougane Zélie biñ ko fi jàppee waxoon na du tëdd ca kaso ba at maa ko waxoon ndax nee naa woon la ca war ci kattanu subhanahu wa taala dinaa ko ca def incha allahu taala ci kaw loolu nag nawet bi lu ñu ci gis mooy ndox mi bari na li waral maanaam ndox mi bari gi mu bari ren euh, li ko waral mooy corona bi nga xam ne jaar na fi. ba nga xam ni ñëpp tuub nañ delo seen ay mbir ci yalla suñu borom motax suñu borom wacce fi nawet bu melni waye nawet bu melni nii gëj am ci aduna 2000 parce que atum seigne alhaji baara ba la fa mujjon taw bu melni waye waaye waral nak suñu borom manam waxna ak jam ñi ba ñepp xam ni rek mooy yalla ñu delu tuub delu ci yalla mo waral nawet bi melni waye nak nag ci kàttanu yalla li tax ñu mëna sammu gantax gën ci am Euh, te maanaam mu doon tawféex ci ñun incha allahu taala euh, na suñ borom dogal maanaam képp ku dégg sama kàddu te man ko euh, nga génne maanaam juróom-ñaari mbuusi soow incha allahu taala daal loolu bu amee ci kàttanu yàlla nawet bi dina barke te dinañ ko jëriñoo bu soobee subhanahu wa taala mu bëggoon rek foofu nga leeralal ñu kilifa gi moo koy génne wala ko nga waaw xam nga sarax moom innamal amalu binniyaati moo ci ëpp solo yéene ji ndax loolu la yàlla wax euh, boo ko jëlee rek ci kàttanu yàlla yow borom kër gi nga jënd ko. yéene ci sa njaboot rek maanaam koo ko sarax rek baax na incha allahu taala Euh, li nga bëgg suñu borom dina la ko euh, defal bu soobee subhaanahu wa taala waaw am naa sëñ Xaadim dinaa la xaw a tàllaase foofu tuuti ndax ñi nga xamante ne nii ñoom la ñuy ay buxaaba ñoom mooy ñiy faral di ci wàllu béjjën ay wàllu sunguf ak yooyu ñoom faral ñuy faral di digle ay sarax ci biir réew mi ñun ay nag la ñuy dégg nañu jënd nag wu waaw xam nga maanaam sëriñ bi li wax ni leer la akul akuk la euh, na man baaxaan noorun bi du jaa fasa yoon waaw képp ko jaayuk leer jëndeg lëndam di nga rëccu ndax euh, bi béjjën yooyu ngay wax ak maanaam pettaaw yooyu ngay wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee woon képp ku jug jëm ci ñoom ba egg ci ñoom euh, jëflanteeg ñoom ñu wax la loo xam ni bàyyi nga ci xel rek maanaam di nga toog ñeent fukki guddi yoo xam ne yàlla suñu borom du la sàmm kon bokkut ak li nga xam ni mooy alquraanil karim euh, ñu xool ko ba mu saytoog maanaam aay bi yàlla suñu borom waxoon ci alquraan euh, naan lépp loo nga xam ne jaaxal nu leen na ngeen saraxe kon maanaam loolu rek euh, ci foofu lañ koy tënk rek maanaam dugal ko ci aaya boobu ko yàlla waxoon ndax euh, alxuraanul karim maa faratnaa fii kitaabin min sayin la yàlla wax euh, lépp ngi ci sama téere bi ki xam nag na wax ki xamul na noppi waaye nag laa yamassuhu illal mutahharun waaw comme ni ko alxuraan waxee rek maanaam lépp lu nit di wax rek maanaam na ko teg ci ak sell ak laab ak xam euh, boo paree nag nga doyloo suñu borom la in zakartum la zidanakum wala in kafartum daal di ñaan yàlla suñu borom mu may la nga sant mu dolli la waaw ah, jërëjëf sëñ hmm. macha allah ci kàddu yu am solo yi mais sànq bi xam naa rek ñun euh, lu jiitu ni ñëw ci borom xam-xam toujours dañuy faral di gëstu ci moom. Hmm. Euh, mu bokk ci li nga xamante ni nii nii bari lu ñu koy dégg ci doomu aadama yi ñu koy wax ci yow moo di euh, daqaar gi. ñun nag jëm gëstul suñu bopp ba sonn waaye mënuñoo am tontu ci lu jëm ci wàllu daqaar gi daqaar gi loolu ciy leeralal sëñ bi. waaw daqaar gi moom euh, ñaare ni liñ ciy mën a leeral moom mooy boo déggee daqaar ga rek euh, maanaam dafa am waykat yu ko way ñaare waykat yu siiw a siiw euh, daqaar ga ca yoonu mbaadaan mm, waaye maanaam dañoo mën a wax rek di wax te wax maanaam doon luñ leen di fayee waaye lépp la ca daqaar ga maanaam mi ngi fii ka suñu xaadim waaw te képp ku bëgg a xam la ca daqaar ga maanaam fexeel ba jëflanteeg suñu xaadim boobaa di nga xam maanaam la ca daqaar gi incha allahu taala waaw waaw. kenn mënu faa dem. ndax pexe ngay def ba yegg fa eh, ñaare maanaam jéggi na day wa waaye la ca daqaar ga lañ fay wëri maanaam dama ni la mi ngi kër sëñ xaadim te képp ku bëgg a xam la ca daqaar ga ak maanaam ñoom fa ñu jaar ba mel ni ñu mel ak fa ñu jaar ba am li ñu am. maanaam jëflanteel ak Serigne Khadim incha allahu taala Euh, di nga mel ni ñu mel wala nga am li ñu am inshallah taala mhm. xam naa foofu dinaa fa def euh, ben taxaw tuti ndax ki nga xamanteni mo ndika way Dakar yi moy ki ñuy wax yusuf Ndour ñu koy wax yusuf ma jigen Ndour amaat itam benen domam bo xamni feelu wat nako ko moom itam ci walu Dakar gi muy balla ko sek mu mel ni ñoom ñaar ñep seen tour fi tolni wurna aduna donc bo nee ñom lañu wax ci Dakar ga mi ngi fii dafay mel ni ñun buñu déggee sa galana wax li ñu bëgg expliquer fofu moy képp ku ñew ci Serigne Khadim sa tour mëna ag wala bokk mu raw fu dama ne la euh, sëriñ bi. Ah. lafa daqaar ga ba gis ko ñoom ba di ko way mi ngi kër suñu xaadim képp ku bëgg euh, am li ñu am wala nga mel ni ñu mel. Mm-hmm. seet seet sëriñ xaadim incha allahu taala. Mm-hmm. la fa Dakar ga mi ngi kër suñu xaadim. Mm-hmm. ndax euh, yaakaar naa lañu fa gis. ci niñ ko mën a nettalee ci nopp doomu aadama. yaakaar naa lu nit mënta wax la. waaw waaye nag ñun ku ñëw ba ci ñun ah, dinañ la defal la ca daqaar ga incha allahu taala lii lu ñu wax la te am na fu ñu ko teg incha allahu rabbi. waaw ñu mbaax ci rek question bopp ci lu jëm ci wàllu yëkkati ko wàllu yokkute boobu nga xamante ni moom ngay wax léeg-léeg ñu koy dëxañ ci benn baat di ko tuddee bayre. Hmm. mu mel ni sëriñ si léegi léeg itam ngeen yor ñaari mbuus. bayre bu mhm. foor ak bayre bu tëggatim bi mhm. bayre bu foor bi ngeen dencal ko ñi nga xam ne ñoom la yàlla nakkal ci wàllu koom mhm. borom alal yi buñ dikkee ngeen jox leen bu baax bi jox leen bu foor bi bi ah, xam ne xëy na loxo yi jotul ginnaaw bu wayaf bi lu waral loolu waaw ah, sëriñ bi laaj nga laaj bu am solo wax dëgg yàlla li nga wax nii ñaare bari nañu koy doxee waaye man nag sëriñ xaadim fu dara nekkul ma def fa dara loolu laa gën a sawar maanaam fu dara nekk ma fay doole dara man ki ma gën a sawar mooy ki mënul dara ñëw ni ma sëñ xaadim awuma dara mënuma dara waaye nangam laa bëgg wala nangam laa bëgg mel ci kattanu subhaanahu wa taala ndax jëflante naak ay nit yoo xam ne war naa ko si yàlla ay alxuraan ji maanaam bi ñuy ñëw ci man ay kàtt lañ doon jaay ay maasan bi laa te suñ borom dogal na ma ñaanal leen mm-hmm. euh, ñu daal di ñu daal dellu bi ma leen ñaanalee suñ borom dogal nañ ñenn ñi dañoo tukki waaw ñenn ñi dañoo tukki euh, waaw ñi dañoo tukki ñenn ñi ñu ngi ci ay liggéey yu baax a baax a baax a baax a baax kon maanaam fu dara newul ma def fa dara man loolu laa gën a man ka fu dara nekk euh, maanaam ma fa yokk dara sëriñ bi yow mi ko daan dégg daan ci amul tiit wala daan ci amul la yi fi jaaxaloon la lool nga amoon kumpay xam la ca daqaar ga mhm. ngir rek sa tur daal di yokk wala bokk nga daal di bëgg a yokk ci sa jëmmi bopp ngir ñi nga xamante ne ñoom ñoo jaar ca daqaar ga la ñu am loolee lépp mi ngi fiy dëxañu ci kër Serigne Khadim Fall alquran mhm. nee naa léeg-léeg mu nekk fi fële ci diwaanu Touba waaye léeg-léeg itam mu nekk fii ci diwaanu Ndakaaru HLM Grand Yoff nag foofee lay fare lu ci mënti xew rek numéro yi moo affiché noonu ci bas écran bi dañ ko ciy jël da ngay fexee ak moom su ko defee nga xam fan la féetee exactement balaa ngay déplacé wu di ñëw fekk ma nga Touba wala balaa ngay jóge fii di dem ba Touba fekk mi ngi woon diwaanu Ndakaaru Njaay seen émission ëttu xam-xam la woon fii ci Sénégal 4 TV di leen jox dig daje ay bis yi di ñëw rek ci beneen toogaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu